jërë ngeen jëf mbokk internet yi dalati leen nag jàmm rek jamono ji rek seen levée de fonds ba xam ne moom la ñu nekkee woon bàyyi wuñ ko rek ñu daal koy gis ab publication rek si page Ousmane Sonko ñu xam ne rek jamono ji rek ñu ne rek dans les ay semaines daanaka rek waa diaspora bi ñoom ñoo nekkoon rek si ab levée de bu am solo lool bu ñu nekkee woon di ko xaalis pour rek waajal li nga xamante ne si ne moo campagne jamono ji rek ñu jox lengay ñi xam ne ñoo fara nekk fii réewum Sénégal ñooñu rek ñu wala dajaloo def seen i levée de fonds waajal rek li xamante ne seen rek si passe Ousmane Sonko ñu say soññi nag Sénégal yëpp rek ñu def benn levée de li nga xamante ne si moo di campagne def campagne boo xamante ne si rek mësuñu ko gis fii si réewum Sénégal muy ab levée de fonds bi nga xamante ne si na de Sénégal ñoom ñëpp rek ñu àndandoo pour def benn ensemble def rek campagne électorale bu am solo lool bu xamante ne si ne kenn mësu ko gis nag ñu bëgg kaa gis nag si ñi nga xamante ne si moo di patriote yi les Pastef du Sénégal ñoo nga xamante ne si rek ñoo seen candidat bi du ba Bassirou Diakhar fay kon nag boobule levée de fonds kon sax ña ngi say woo Sénégal eh, yëpp rek pour ñu waajal ko